xibaaru biti réew ak Ibou Diouf Ibou ñu wax ci Londres ak yi ñi xaatim euh, démb benn déggoo boo xamante ni daanaka dañ ko dekkil sax euh, ba ku ñëw foofu ca réew ma maanaam Royaume-Uni ci anam yu leerul ñu dàq la nga dem fële ca Rwanda. waaw muy euh, coow loo xamante ne juddu woon na foofu ca Angleterre ba tu attekaay bi jëloon dogal sax ne loolu doxoon diggante waa Rwanda ak Angleterre dakkal nañ ko ndax dañ ne woon. képp ku ñu jàppati foofu te na ko en maanaam amoo kayit yi war dañ lay euh, yóbbu fi nga xamante ne mooy Rwanda waaye nag loolu dafa mel ni laat nañ ko ndax démb rek jot nañu xaatim beneen euh, déggoo boo xamante ne ñaari réew yi fas nañu rek képp koo xamante ne da nga ñëw euh, ci ay anam yu dëppowul ak waa Royaume-Uni lu ñu soxla dañ lay delluwaat fi nga xamante ne mooy Afrique rawatina foofu ca Rwanda ci jamono jooju nag benn tribunal bu euh, Kenya am na kër liggéeykaay yoo xamante ne fukk la ak benn yu ñu naroon euh, privatiser maanaam jaay leen ay société wala sax ay réew yu féete biti réew bokk na ci lu lalu wala pétrole gaz loolu nag euh, mel na ni tribinal ba nen loolu mënul antu ndax ñuy fàttaliku sax ay jamono ki di Raila Odinga mu ngi doon ñaawlu li ni mel rek eh, tey sàkku ci kilifa yi ñu jëloon dogal ngir loole du antu eh, ci jamono jooju nag eh, lu aju rek ci xeex bi nga xamante ne moom la ñuy sumb ngir lépp loo xamante ne la ñuy jëfandikoo baaxul mes di kuréel bi nga xamante ne mooy sant saytu wàllu wér-gu-yaram nee na nag dañ ñu war a yokk taxes yi ci lépp loo xamante ne sàngara la wala yenn boissons sucrées yi su ko defee ñenn ci askan wi mën na muy tundiku di ko jëfandikoo ñoom dañu jàppale loolu mën na doon euh, dogal boo xamante ne rek dina may lu toll ci euh, ñaari téeméeri million ak lu toftale nit ñu mën a mucc ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la leen di jural at bu nekk waanaam jëfandikoo wàllu euh, sàngara wala sax yenni boisson yi ñu wax rek ci wàllu recherche foofee ca Cameroun nag am na ñaari soxna ay doomu Cameroun yu jigéen daal mu ñoo xamante ne ràññeeku nañ bu baax a baax ci wàllu recherche demale ko nag ci wàllu wërgu-yaram kooke du na Adelina Fanta ak itam Hajatu da Dayru ñoom nag ay doctorante lañ ñoo xamante ne ku ci nekk am na daal loo indi lu yees ci wàllu euh, xaral la euh, li nga xamante ne noonu la ñuy euh, saytoo li nga xamante ne mooy wàllu cancer wala sax euh, feebar bi di Alzheimer ñooñ nag nekk foofee ca Cameroun euh, rawatina ci institut de recherche médical ba am na daal ay jéego yoo xamante ne def nañ ko jagleel ko askan bi ngir ñu mën ko jëfandikoo ci seeni wér-gu-yaram soxna naata jërëjëf euh, Ibou Diouf ci xibaaru biti réew yi léegi léegi dañuy jàll ci un jour au Sénégal un jour dans le monde. alors tey euh, juróom-benn fan ci weeru décembre bokk na ci li ñuy fàttaliku atum 2021 benn nit bu ñàkk bakkanam ci benn match nawetaan bu amoon foofu ca euh, Tëngéej euh, ba tax sax nag ñuy samp laaj ndax nawetaan yi dañ koo war a tëggaat xoolaat ko ndax fitna giñ ciy nemmeeku